mbokk internet yi ñu leen di dalal ci biir limametti.com di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp xam ngeen dañoo nekk ci jamonoy crise crise bi di crise coronavirus du jàngoro ji nga xam ne dafa jugoon wax ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi daal di jël ay mesures yoo xam ne daf ko tegoon ngir xeex li nga xam ne moom mooy jàngoro ji di covid ci biir mesures yooyu nag amoon na ci loo xam ne am na ci mooy marché yi nga xam ne dañ ay jours yoo xam ne dañ koy tànn pour ñiy jaay beneen jour ñële jaay ñu daan jël samedi ak dimanche di ko tëj définitivement marché yi ñëpp di toog seen kër loolu am ñu ko doon nakarlu bu a baax nga coronavirus ñi ngi ni dafay gën a yokk ngi atteindre li nga pic bi sommet wu bi nga coronavirus ki nga xam ne président Macky Sall daal discours daal di waxtaan ak population yi li def nag moom mooy alléger li nga xam ne moom mooy mesures gën ko fi marché yi la tous les jours bu dañuy ni nañ jël benn jour nag boo xam marché bi ngir raxas ko jumaa yeeg jàkka yi nga xam ne tëjoon nañ ko wax na ne dinañ ko ubbi heure couvre-feu bi tamit wax na ni dinañ ko yokk ba 21h looloo taxoon na ñu dem doxantu ci biir marché bi doxantu ci biir askan wi laajal leen ñoom lan la ñuy xalaat ci li nga xam ne moom la président Macky Sall daal di wax allégé li mu allégé mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko contre feebar bi nga xam ne mooy Covid 19 da ngeen may daal di topp ngeen daal di xam lu population bi xalaat ci mbir moomu. xanaa ñu kontaan ci rek di ko ci sant di ko ci gërëm ndax ñun ay jaboot lañu. ñun yaakaaruñu fenn judul fi ñuy liggéeyee na fi ñuy liggéey fii lañuy dawee dépasse fii la ñuy dawee lépp fi ñuy toog fii la ñuy dawee suñu dépasse bu ñu jaayee ba mu naaj ñu daw dem dem duggi togg kii nag amoon na nag fan yi nag marché bi moom niñ ko defee woon baaxul dafa xattoon nga bëgg a dugg ñetti fan ci jaboot xam nga loolu kenn mënu ko ah mais li mu def daal wax dëgg yàlla ñu ngi ko ci sant ñu ngi ko ciy gërëm kontaan nañ ci trop trop trop trop trop waaye suñu dimanche bi nañ ñu ko delloo ndax baana baana dimanche rek la am ndax ñu bari dañuy toog seen kër yi bu ñu liggéeyul dimanche bi la ñuy ñëw ci marché bi ndugg jënd li ñu bëgg dimanche bi daal ñun ni mooy suñu fête nañu ko delloo nañu delloo suñu dimanche moom Macky Sall fa bi liñ ko yóbbu ba vingt et une baax na ndax ñiy jaay guddi dëkk bi daal moo nekk loo xam ne dafa doy ndax am na ñoo xam ne ku nekk fi ngay gisee sa bopp am na ñuy jaay bëccëg am na ñuy jaay guddi jaayatuñu jëndatuñu ñu ngi ci kër yi toog te boo jaay doo mën a faj sa soxla dégg sa xol du belli te ñun loolu lañuy dundee dégg ñun daal kontaan nañ ci li mu ci def yëpp wax dëgg yàlla te bu dollee dimanche bi it mu gën a neex waaw. mais jàmm rek ndax julit la ndax li tax mu nekk julit moo tax mu tijji marché yi. ndax xam na ni doole yamut te ñëpp yamuñu sama classe gi tey jii su ma jaayulee ba pare duma mën a dem marché kon bu ko tëjee war ko tëj ma toog 3 jours ma dem di nduggi trois jours sama doole yamut foofu te bëri naa ci tamit ay morom te lii muy def nii ñun lay jàppale ndax moom tey ji fa mu nekk tey jii aar na boppam kon ñun ñii mag Sall li muy def yëpp suñu kaaraange la ñun kon bu tijjee lii ñun la ko defal ñu ko ci sant di ko ci gërëm te war koo mën a jàppale nag te ñun ñoo war a mën a jàppale suñu bopp waaw fenn rek laay wax ci mag yi muy affaire ceeb bi ak diwlin bi affaire yooyu man loolu man ci sama xalaat dëgg la de sama loxo yàqu sama ginnaaw mais boobu ba tey maa ngi dund te gisuma ceebu nguur su ma sañoon ceeb beeg yooyu yëpp mu def xaalis bu bari boobu mu ci def mu defoon ko ci feebar bi jumtukaay yi dibbali hôpital yi tey jii marché bi li muy bëri bëri nit yëpp amoon na nu ñu doon taxawee ci marché bi nit dina mën a dugg te kenn du ci wàllante ndax porte yëpp buñ fa tegoon tey jii liñ matuwaay yëpp ñu teg ko fa kuy dugg raxasu def yëpp kon tey jii feebar bi du lawee nii mais ceeb beeg diwlin beeg yëpp man loolu amul sens pour man pour man mu defoon ko ci hôpital yi ak ci feebar bi yooyu daal man lool moo doon sama xalaat. waa ci marché yi la gën a garaawee loolu moom dëgg mais ku nek rek da ngay ki sa bop da fay melni am nga febar rek du deug suba ko waxe yow li nga wara def def ko ki genn tam di jëndi mu def li mu wara def ar sa bop sam sa bop du deug ku nek ku nek bu defé non rek respecté loi bi ñu wax rek at li ñi li ñi li ñi téré rek nga def ko tak sa max yalla mën na cee def jàmm yàlla nañ ci musal ti ci ñëpp ñun daal lool la ñuy ñaan mu feebar bi yalla jëlé ko fi lool la julit yépp di ñaan wax dëgg yalla ko gis muy dem bàyyi na xelam ne feebar bi am na dañuy dox nii rek parce que mënul ñàkk xam nga bu ñu amoon lu ñu gënal duñu toog ci marché bi dañuy dem tëdd suñu kër yi comme patron yi ni ñu tëddee seen kër yi di def cek-cek xale yi di leen dugale di indi ñun nag tollooguñu foofu amaguñu lu ñu jëndee cek-cek mu fii lañ koy jëlee nag du ñuy lu ñuy lekk ci marché bi lañ koy jëlee fi lañ koy nduggee fi lañ koy lijjanti jee suñu kër yi wax dëgg yàlla waaw man daal loolu laa amoon ci lu ma ciy wax te mu dellooñu suñu dimanche ndax ñun dimanche la ñu am amuñu leneen lu dul dimanche nañu delloo suñu dimanche. loolu moom xaw na maa jaaxal tuuti waaye tamit ba tey ma delluwaat di la wax ne rek jullit la dafa xam ni metti na rek moo tax mu tijj ko ñun ñooy war a sàmm suñu boppam te tamit ni mu ko tëjee woon. tamit fa la gënoon a mën a duggee ndax tey ji muñ deen duggi marché bi nii la ñuy def dañuy tañtante nii kon mu bàyyi ko chaque jour ñuy dem di nduggi ñu jël matukaay yi mooy mooy li gën waaw. ndax ni liggéey dimanche la ñuy ñëw fi mu ne nii koo gis muy dox bàyyi na xelam ci feebar bi. da ngay dox sax nit ñi di la moytu ku nekk man ni ko jënd dama koy moytu moom tam daf may moytu ma la pare laal zel laal eau de javel moom tamit laal zel laal eau de takk mag yan nañ ci yàlla musal daal musal ci mbooloo mu jullit yàlla jëlee ko fi jëlee ko ci monde entier yëpp loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def.